sedo Sebe ab euh, dëkk la ma nga ca région bu euh, Matam mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci euh, xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag dana ca bokk niwu ndem si yàlla si di El Hadji Moustapha Guèye niki tey ji nag la nar wàcc rek ca aéroport Léopold Sédar Senghor ba ca diwaanu Ndakaaru bu 14h jotee 17h daañu amal levée du corps ba ca l'hôpital principal ba niki ëllëg itam la ñu ko fas yéene denc rek. ca dëkkam boobe eh, di Seedo eh, Sebe moom moomee nag di way làqu bi eh, dundam liggéeyam ak jaar-jaaram daañu ko fàttaliku waat ak Bara Diop ci biir xibaar yi am njaay jàppal Diop gi dox ci diggante kilifaay diwaan bekk commerçant ya ca marché xaar yàlla bi ci Medina Baye loolee nag jamono jii ma ngay bëgg a booy nopp ni ki démb sax nak coow laa nga fa ne woon ne comboy ndaxte itam ne waa police municipale bu kaw Kaolack bi ñoom nag ñoo fa dem xamal leen ne itam dañu leen a war a toxal balay gàmmu gi waaye nag ñoom commerçant yaak liggéeykat ya loolee duggul ca seen i ay nopp ba tax na itam dañoo lànk ba tëdd ca naaj ba loole itam dañ ca dikk ci njëlbeenu ak xibaar yi lenn ci béykat ya nekkee ca ñeseen wàllo ca département bu Nioro ñoom nag jamono ji rek ña nga ca guddi gu bët setagul gannaaw ba nga xamee ne si ay golo daal ñoo songu nak seen tool yi am mboq ya yàqal leen fa ay yàq yu am métti métti ay pexe nag la ñu bëgg jamono ji ngir golo ya mën fay jugee Omar Diagne moom kenn la ca béykat ya daañu ko dégg ci ndimbalal noix bi yaay bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat a ak li ci yéene kaay yi mu yemboog li gën a fës ci ponk xibaar yi nes gis ñu indi ci faram-fàcce Le journal Ngoné Ndiaye Reine ci eh, kaddu gi eh, fego ci ak code eh, sec madame kenn mi ci wàllu xarale gi ak it nag na ma leen ko junjee ab agent municipal ni ki démb nag moo fa dem rek doon leen yëgal ne ñoom ñooñee dañu leen a war a toxal ay gàmmu gi ñoom commerçant ak liggéeykat ya nga xamee ne ñoo nekkee ci marché xaar yàlla bi ci médina baay bi waaye loolee nag duggul ca seen i ay nopp ndaxte itam la ñu xamle mooy ne mètre nag duñu ko bouger lu dul ne rek ci marché bu yees bii la ñu leen jëmee Cheikh Tidiane Diagne ki leexal tàngoon na lool ci diggante commerçant yi ak ñi nga xamante ne ñoo di agent municipal yi nekk ci mairie bu Kaolack ci buntu marché xaar yàlla bi nekk ci Medina bàyyi xàll wi ñu joxoon jaaykat yi ñu jëlee woon ci marché bi ñu dippee centre Mame Astou Diankha la mairie bi ñëw nag ne nañu fi jógee ñoom liggéeykat yi nekk ci marché xaar yàlla nag dal di mel ni rek ku yamb topp ndax bëgg ñoo dégg kàddu gi benn yoon Baye Ndaw moo jiite ndaw ñi ci barab bile. fii moom xaar koñ ba koñ la ñu wax de ku ko fi laal ñun nga koy seetal te kenn sañul kanaan nga nekk doomu Kaolack comme sa moromu doomu Kaolack ngay jël naqar wala coono di ko teg si kawam. li nu mel tamit la wax moom Jibi ja di secrétaire général kuréel gi takkee ñu nekk ci marché xaar yàlla bu diwaanu Kaolack nag nee na nag li bi ndax nga mën a ñu fi dund Cheikh si ay jafe-jafe kenn xamu nu kenn tegu fi tànkam boobu léegi ñuy joytu bu ba ceg nañ ñu tijjil suñ marché bi ndax vraiment li ñuy dund fii nii vraiment métti na mënuñ ko supporter ñu doon xaar si ñoom nag vraiment ñu ubbi marché bi ñu delloo fa tey un agent municipal ñëw ne léegi dañoo am décision bu jël mooy dañoo bëgg vraiment jëlee fi ñu fi nekk encore yóbbu leen ci na ndax jamono ji dañuy dund dund wereyaan li nu mel indiwun ci benn saafara ñoom kilifa yi di leen tegaat beneen coono Serigne Mboup maire bu Kaolack la yóbbante kàddu yi le waaw Serigne Mboup li ma waxoon mooy man dama ne quelque part dafa daw ay responsabilité parce que moom mooy maire dëkk bi marché ci autorité la nekk man dama doon xaar tey moom bu ñu ko élire si maire Kaolack vraiment mu ñëw situation bi nga xamante moo nekk ci marché manifester même bu fekkee yow yebaloo wala ñëw toog bëgg la ko bëgg la ko proposé ne yow la sax nga ñëw teggi tuuma ne lii du man ñun sàkku nañ pour jógee parce que neexul mais jógee bi fan la mu dem suñu marché commissaire bi jiite police municipale bi nekk ci biir mairie bi nag la ñu fa seen bi ñu ñëwee nag ab waxtaan la ñu njëkk a woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jaaykat yi nekk ci marché bi lee waaye nag fii coow li ne jobay waxtaan wi sax mu jul continuer ba noppi nag ñu ne li leen mën a jëlee ci marché xaar yàlla bi nga xamante ne ay zinc électricité ak lépp lu jëm ci wàllug ndox ñoom ñoo def démarche marché yi ba ñu ñëw du lenn lu dul ñu ubbi leen centre commercial bu maam Assou Diankha. Cheikh Tidiane Diagne ñoom nag commerçant yaak liggéeykat yooyee nag nee nañu daal du ñu nangu rek kenn di leen fay jëlee fileek gàmmu gi di xaawi seen ak sutura lu ni mel sax nag tax na ñu ne daal takkaayu nañu ba dëgër ngir tay la ca seen ak bakkan ndaxte dañoo damm taay yi sonn seen i kàddu bi ca Cheikh Tidiane Diagne. benn agent municipal moo fi ñëw di wax ne pour si mooy marché bi ñu jógee dugg ca marché bee bu ñu ba ilaa yoomi bëx di duñ dem fenn te buy dee dañuy dem fenn ma nekk fekk samay naw rek sama mbokku taalibe tax benn site lañ demul katar pala ñu bañ jeex ñu dër ñu dem yóbbu ñu ca armée li maam bàyyi ñu fi daawuñ moo ñu waaye demul benn site li wax mooy dëgg li wax mooy dëgg marché bi dañ fay yàgg li muy fukki at ku ko muñ war nañ laa muyal ñaar fukki fan

mënuñu ñu teg ñu si ay conditions yu leer dañu teg si ay conditions yu leer mënuñoo teg ci ay conditions yu leer duñ fa jógee ñun duñu ay xar duñu ay xar ay nit rek lañu dañoo muñ ba sonn mais mënuñu jël tey tey yóbbu ñu fa ne tey tey mënta ne mënul nekk nañu dimbale lillahi wa rasuli nañu dimbale te xam ne ay nit lañ ko séqal séquñ ko ay ay baado ay doomu aadama lañ ko séqal je vous waaw ma ne ci lay bi sax leen xam nun xaar ay délai responsable dañu ñëw wax ak ñun si responsable moo gën benn place na bu wax. kay euh, délégué euh, marché na rek ak na mu euh, demee boole ko itam nag di jooytu seen ak jafe-jafe ci kanam xalif bi nee na itam ñoom soxlawu ñoo xam sax ana kanam moo yeble waaye daal li ci am ba des mooy ne kilifa gi rek la ñu déglu Babacar Wilane ci micro Cheikh de depuis ba léegi ci météo lañ ne. mu bëgg a neexaat góom bu bees ci suñ kaw. nañ doon bañee nag la ñuy bañaat ba tey. xalifa ñu daaneeloon marché boobu andi ñu fii xalifa rek moo mën a waxaat ñu jógaat ci fii dem feneen waaye keneen mënul fexe mu ko bañ déplacé fii te duwut fan ñu jëlee woon dafa pare ñu dellu xaat foofu waxtaan wi ngeen seq lan la lan lañ leen wax moom daal lépp na ay léebam xam ko ko yebal dafa wax ne dafa bëgg ñu jógee fii balaa gàmm utal ñu feneen mbooloo mi nag bañ nañ kenn xamut ne la ne mu ne après yootal na ma ne après danañu wax fii bi fu ne waaye man xamaguma ko waxtaan yi mujjul ak déedéet tàggu de marché bi ak kuñ fa mën a jëlee. léegi délégué. waaw yéen doon jooy ñu ubbi marché bi pour ngeen delluwaat loolu seen rongañ. waaw loolu lañ bëgg tey ba léegi ci loolu lañ soxla. marché bi pare na incha allah ci kattanal yàlla danañ ko joxe ñu ngi jéem feeg balaa ñuy gàmm danañ ko joxe ci kattanal yàlla. su paree it képp ku fa amoon place da jotaat sa place. li ñuy wax kilifa yi daal ñun benn bunt rek lañ xam mu ñëw ci ñun pour ñu bund xatal ñu fii ñu yóbbu ñu ci place ba ñu jëlee woon ñu a sonn fii waaye ñu bëggee Sénégal lañ bokk bëri na fii li fiy xëy mii liy teg nañ daleel fii fii ba ba ngay dem fële ci gannaaw ak biti yëpp nag li fay sàkku si war nag de li fay sàkku si war nag bëri na lu ngeen wax mooy su fekkee mooy xebal ndaw lii naka mu teggi tànkam ba xam fu ñuy yoor fi ñuy laaj suñuy kilifa te mooy Cheikh Mouhamadou Maye ñun marché ba la nga xam ne fa lañ ñuy jëlee woon foofu lañ bëgg a dem surut foofu nañ nga baxaagum fii ba daat ba jot mën ñu fa yóbbu foofu la ñuy laaj ci loolu benn bunte rek lañ koy laaj mooy Cheikh Mouhamadou Maye déglu wuñ keneen ndax keneen mënu ci dara hatta moom fekkee ki ko xebal it xam wut bunte marché bii duul mooy joxe ci marché bii ka koy joxe gouvernement bi xam na comme nommé pour mu yore ko mu ngi ci liggéey bu pare dañuy jox suñuy place ci kattanal jàll Babacar Wilane ndéem nag ña nga ca wàlluma jaba ya ca la ñuy des ngir nag waxtaane jafe-jafe yi nga xamee ne askan wi moom la ñuy jànkonte rek ci wàllum dund gu cher gi tax na itam moom njiitu réew mi Macky Sall nara dalal ñi nga xamee ni ñoo di kuréelu waaye jëfandiku yi Ascosen bànqaas bi ci Kaolack ñoom nag nee ñu itam duñu ca des ginnaaw njàmbat leeg la ñu ko nar a yeggee moom jiitu réew mi moom mi jiite bànqaas bi ci Kaolack di El Hadji Abdou Badio dikkaat na ceek Cheikh Tidiane Diagne. altine ou talaata président bu jógee tukki bi ng xam moom la nekk di def Europe incha ak askan yi xool li nga xam ne moo nekk ci marché bi parce que marché bi ki nga xam ne moo fi nekkoon jiitewoon wàllu commerce di Assome Diatta lu mu def ci marché yi nit ñi dañuy yokk lu leen neex dëkk bi tar na lu jaroon fukki dërëm mu jar téeméer lu jar téeméer mu jar ñaar téeméer yaakaar naa ne amutoon benn contrôle ministre bu fi nekkoon ciwneelu woon parce que vraiment loolu tax ñun ñu ñaan président de la République que mu jëlee ko fi parce que moom boppam la fi nekkaloon pour taxawal koy wax bu ngeen demee ci ndaje mi. waaw bu ñu fa demee li ñu koy wax mooy que na xool na gëstu bàyyi xel askan nga xam ne ñooy askanu Sénégal parce que askan wi Sénégal boobu dañu sonn lu tax ñu sonn ñu jógee ci coronavirus jógee foofu encore mooy Covid 19 ñu jógee fa encore ñu ñëw ci li nga xam ne mooy xeex Ukraine bi ak leneen ak leneen yaakaar naa ne loolu ba président de la république bi ñu demee foofu rencontré ko mu ma nopp moo tax mu ne bi mu defee discours loolu lay dem di ko wax président moo tax président discours à la ba mu def mu ne danaa daje ak association de consommateurs yi ak ñeneen ak ñeneen ce qui veut dire que nopp lépp lu ñu koy wax mooy président jël na ko compte lu ñu koy wax mooy que ni askan wi sonn nañ askan wi sonn nañ ba ay yoon ba pare nañ na gëstu mandat mi nga xam ne moo ko defee desee mu gës askan wi bu baax wàññi li nga xam ne moo fi nekk. très bien Abdou Badio. boo jàkkaarloo

wàllu marché beeg pëccëxoo gi am ci wàllu njënd meeg njaay mi xalaat na ko ba noppi itam daal di koy fësal moom El Hadji Abdou Badio nga doon tontuwaale yeneen laaju Cheikh Tidiane Diagne. waaye di am contrôle. yaa ngi déggalement si bitig yi. parce que ñun depuis de la république. de la consommation. volontaires de la consommation yooyu ay xale yu góor loo xam ne dañ leen former. bu ko defee ñu nekk Kaolack di circuler. parce que am na ñoo xam ne tey jàng nañ am gënoon tuuti sax ñu mën a def contrôle ñu mën a ne ci mu jaay ko cent franc kooku noonu mu wanda parce mu bu loolu bu amee rek yaakaar naa ne euh, lu bëri mën na wàññeeku ci wàllu commerce bi. yéen consommateurs yi boutiquiers yi ñu ne lépp yéen la lu ba yokkute gi bu amee yéen la yéenay lobby yéenay dem ci ministère yi yéen daal yéenay indi mbir mi. dëgg naa boutiquiers yi ñu koy wax parce samay xarit lañ xamante nañ bu baax ñoom bu ñu leen nee ñu wax consommateur lañ yaakaar naa ne ñun lu ñuy défendre ñoom si lañ bokk ñoom nag li nga xam ne mooy problème moom wax naa ko seen i kanam ak kanam gouverneur seen problème yépp mooy kat dafa bëri ay faux grossistes yooyu bu ko defee ñoom tam ñu liggantee seen i affaire askan yi mën si gis seen bopp yaakaar naa ne loolu moom moo fi nekk ñoom bu ñu waxee loolu xëy na peut ñoom dañuy wax rek ñaata euh, kuréelu consommateur ñoo war a dem ci Sénégal yëpp moo kuréel yi fa dem bëri

défendre askan yi pour que askan yi nekk ci ay anam yoo yu rafet la ministre boobu loolu lañ koy ñaan waaye di ko dalal jàmm waaye nag danañ ko wax li nga xam ne mooy doléance askan wi pour que mu mën koo saafara. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 kaddu gi eh, di àddoo fii ci studio Alioune eh, Momar Lo taaxum kaw ma ñu eh, duppe Cheikh Imam Assane Cissé des ba tey ci jafe-jafe askan wi maa ngi leen ko doon wax ci tàmbali gi leen ci béykat ya nekkee ca Niassène Walo ca département bu Nioro ñoom nag jamono ji ñi ngi ci njàqareek naqar wu jéggi dayoo gannaaw ba nga xamee ne si ay golo daal ñoo attaqué nag seen toolu mboq ya yàqal leen fa tey itam yàqu-yàqu yu bare bari fi mu toll nii sax seen i gët dong la ñu dese nag ngir xool te moo ne day fu nekk la dugg lu nekk la ñu daj ngir amal nag mbayum ren jiile kenn ca ñoom di Oumar Diagne moo ca jokkoo ci téléphone ak noa bi ay xaw nañoo xam problème trop ndax gole yi sonn nañu trop ci àll bi sama mbokk mi fii may wax yow nii tey nii maa ngi ci àll bi nii ndax lañ fa yàq tey boo ko boñoon tey mën na une tonne mboq te fi ni nii boo laalee golo ooy foore wax boo laalee mbaawaan la ooy foore wax te loolu jaarul ndax wax dëgg yàlla nit bay ba heure bii golo yàqaloo ko wala mbaawaan la xam nga loolu dafa métti fi ni nii saako engrais ko jëndee vingt cinq mille francs léegi fay yëpp di am mboq ba mu toll fii heure bii ñu ko yàqal si lu dul dara loolu dafa métti seet at ngir yoo xam ne dañ koy tëral nga xam ne nit a seet pexe seen tool yi mën a ndax su doon nawet bi loolu daal bëgg nañ ko ñu si jàppale dimbali ñu si wala yi daal demee mboq gi la jël mboq ko ba daanu ñu bi commencé def pepp moom la lekk te kooku moom saye buñ ko xasee lekk saye jeex na ñooñu daal li ñu leen di lancé mooy liñ def nii du pexe jur jur goo xam ni dañoo bëri ay doom man gis naa leen te loolu fi nii bu màggee fii dafay gën a métti ndax fi ni nii tey golo gu jug tey ànd ak ay doomam li néew dugg tey war bu ñu defoon tool bi ñaari waar mu yàq léegi nag fi nii nii li ma xam mooy ñu seet pexe ba nga xam ni gol yi dañu jugee dañuy euh, dellu siwaat nag fii ci kaw Kaolack euh, commune ay fan rek nag moo des ngir ñu àgg nag ci euh, gàmmu gi waaye nag askan waa nga xamee ne ñoo farek coof ak ci def fi nga xamee ne moo di ci Kaolack ñoom nag jamono ji boo mayulee rek daañu am ay jafe-jafe ngir mën a dalal seeni seeni ganu ak gàmmu loolee kon la ko waral weesuwul ne ba jamono jii ñu ngay tëmb ca ndox ma gannaaw Cheikh Tidiane Diagne demoon na fa seeti ji leen moom noo bi ay askan yi nekkee fii ci quartier Coofak ci commune bu Kaolack jaaxale dëggantaan la yi nekk seen dund bokkul ak ñeneen askan yi nekkee fii ci Kaolack fii lu ëpp ñaar fukk kër ndox nangu na ko ndox booba sax dafa nekk danger permanent ci askan yi fi nekk Xadim Bàcc moo doon wax ci tuur jigéen yi côté daaw ca gàmm ga la defoon fiil gi ci biir nag xolleeku na xale yaa ngi la ngaamu ci courant bi dem nañ Senelec ba sonn heure bu ñu demee ñu ne dinañ ñëw ñëwut fii ak nit deewu fi nag duñ fi ñëw sonn nañ dee nañ tàyyi nañ nañ ñu wallu ci dëkk bi lañ bokk te dañoo yor ay xale nañ ñu dimbale soo moytu ren ci gàmmu Medina Baye askani ñooñu duñu xam fan lañu war a seen gan yi problème bu ñu am daal moo métti na xale yi gis ngeen leen ci biir ndox mi su guddi jotee waxuma la bëccëg bëccëg sax buñ bëggee génn sax buñ demee marché ba ñëw sax dañu am problème da ngay gis ñoo xam dañuy dem ba si yaa war a julli ji dañu bëgg a daanu lu ne lañ siy daj seen néeg yëpp am nañ problème ndox bi nag fu ne yuy jógee ko di wàcc fii lay wàcc luñ gis ren moom dafa ëpp gàmm gi mi ngi ñëw lu si des fu ne nii sax boo ko xoolee matatu dara te fu ne nii lii ñuy dund ni bu ko gan yi ñëw fa lañ jëm askani coofax nekk ci jaaxale déggantaani a leen taxaw coopération citoyenne ak développement local nag ndaw lu nekk itam war na cay dugal loxoom te sax nag moom ndaw bi jamono ju nekk rek war na di laaj ana lan laa mën a defal sama dëkk wala sama gox ngir nag mu daal di suqaliku Aline Badara Diop def na ci ab reportage. doxalinu gox bokk na ci engagement bi nga xamante nii ndaw bi war na ko am ci diwaanam jéem a bokk ci liy doxal diwaanam bokk na ci loo gën a fës ci loo xamante ni war nañ ko ràññi ci ndaw yi le bu ñu ci kàddu ki nga xamante ni mu ngi wuyoo tuuru Cheikh Ahmadou Bamba Thiam. jàpp naa ne ndaw bu nekk war nga fexe ba li doxal sa gox nga teg ci sa loxo comme ni ko xalaatkat bi waxee woon rek bul xool yow rek li nga xam ne sa gox moom la la war a defal mais saa soo xëyee na nga xool li nga war a mën a def. sa gox ndaw bu nekk nag war nga fexe ba heure boo xëyee lépp li nga xam ne gis nga ne doxul nga xalaat ci li nga xam ne moom nga war a mën a teg pour ko loolu noonu mën a bouger tey jii ñu ngi gis nawet bu nekk dina am ay inondation koñ yi fees ba am ñoo xam ne dañuy tuxu ci seen kër yi ndax mënatuñ faa dëkk mi lay dellusiwaat bi nga xamante ni ndaw ñi war nañ ko am ci seen i gox. te pourtant le fait que ñuy ut ay garab di koy jëmbat rek loolu mën naa régler lu bëri ba pare Kaolack nekk zone boo xam ne zone bu tàng la kon fait que à chaque fois ñuy jéem a jëmbat ay garab di leen suuxat loolu noonu aussi day participer bu baax climat bi ni muy yokkee ak yokkin bu jéggi dayoo bi mën a wàññeeku bu baax a baax a baax a baax suñ ko nee ci loolu aussi mën nañu wax ne li nga xam ne doon nañ ko gis ci mel ni ay ASC ay association nga xam ne dañ doon participer activement ci dundu gox ci dundu société à travers ay don de à travers ay set setal yoo xam ne li nga koy gis léegi bëreetul à travers peut-être ay journée de consultation gratuite nga xam ne journée yooyu permettre nañu bari ay feebar yoo xam ne ñu ngi ko doon sooxaalee te xamuñ ko ñu mën kaa déceler te leen a prendre en charge ba loolu noonu du leen lor loolu nag ay ndaw yu engagé jug pour dëgëral seen taxawaay ci seen gox jug pour li nga xam ne moom manqué seen gox ñu mën ci indi ay solution ndaw yooyu noonu rek ko mën te ndaw yooyu noonu la Sénégal soxla sa réew lan la la war a jëriñ yow sa bopp laajal lan nga war a jëriñ sa réew loolee tax na ñuy ñaax ndaw ñi li ñu bokk ci li nga xamante ni mu wàllum développement ci seen gox ngir kat ñu mun leen a ràññee ci doxalinu sunu réew di Sénégal. pour ne man sama société dañ maa soxla sama koñ dañ maa soxla sama dëkk dañ maa soxla kon man mii kat lépp lu may def war naa cee xalaat naka la ci sama société di amee njëriñ loolu nag la ñuy doyee ndaw te mag ñi aussi war nañ cee soññ bu baax ndaw ñi ñu xam lan moo war a nekk seen taxawaay ci seen quartier. di ko euh, jaajëfal lu euh, bare bari jaaree ko nag ci lii di euh, semaine de la propreté ñi di acteur éducatif yeeg waajuru ndongo yi ñoom nag jamono ji bëgg nañu caa porox ndoolu rek ngir nag daal di set setal lépp lu luy bërëbu jàngeekaay maanaam l'école yi ngir nag daal di mën a waajal ouverture yi ci kaw loolu itam sax nag tàmbali nañu ndaxte waxtu wii ñu ngi ci mobilisation beek sensibilisation bi lu may loolu itam am nañu ay bëgg-bëgg yu ñu gaaral mais yi bekk seen yi ay kilifa su ko defee itam ñu daal di mën a am ubbite gu jaax ci yoon lu ni mel nag ca àddu mooy inspecteur Youssouf Saré mu ngi ci micro bi ay nawet ak ndox mi ak ñax yi bon yëpp daal école yi aussi dañu donc véritablement am na liggéey bi ñu war a def pour que écoles yi mun a fonctionner écoles yi mun a accueillir élèves yi ak enseignants yi et pour cela je crois que waruñu xaar dara ci état bi kooku moom suñu liggéey la ñun ñi nekk à la base moo tax ñu ne la semaine de la propreté ñu jël une semaine au moins du 24 au 2 nga xam ni ñëpp ñooy mobiliser wu ñëpp communauté bi parents d'élèves yi CGE yi jëm ci écoles yi jéem ko préparer jéem a désherber jéem a def lépp daal li war pour que écoles yi mën a fonctionner moo tax ñu ne véritablement semaine domaine boobu war nañ ci taxaw gouverneur wax ci IA wax ci mobiliser ñëpp pour que véritablement ñu defar suñu école yi balaa jour ouverture beneen question bi mooy euh, accompagnement bi xam nga le 3 la ñuy ubbi te ñun suñu département bi département bu rëy la macha allah boo xam nga fi ba Combi ba Thiaré et cetera vraiment ay axe la yi nga xam ni suñu ñaari oto yi rek doyul moo tax ñu bëgg euh, véritablement maire yi jàppale ñu ci oto pour que ñu mun a dem ci école yu bëri la chaque année dañu confronté jàngalekat yi doyuñu wax dëgg yàlla nombre bi doyul kooku il faut ñu wax ko ba mu leer moo tax ñuy ne véritablement nañu autorités yi jàppale maanaam niveau central wala IA ñu jàppale ñu jox ñu ay enseignants yu doy yi nga xam ne mun nañu leen affecté à temps problème bañ a am ci àddu kon jëmale ko rek ci euh, geneen mbir ab lëlu tàggatu nag la ñu doon amal rek ca diwaanu euh, Vélingara jagleeloon kon nag élu yu euh, département ba lu ni mel nag ci wàllu yorin liggéey ak dox. doxalin gannaaw ba nga xamee ni dañu leen a fal yees atelier bu ni mel nag mi ngi jàppandi ci ndimbalu ARD ak seen i ay partenaires Abdourahmane Diallo njiital ARD ba foofee moo doon dikkaat ci solo sa ndaje ma ci micro ba Diouf. tey dañu ñëwoon former les élus du département de Vélingara depuis démb ñoo ngi ak ñoom di rappeler un peu contexte bi mooy bi ñu defee conseil d' administration ARD élus yi dañ ne woon dañoo soxla formation parce que dañ génn élection dañu bëri ay élus yu bees ba mu paree ñu daw waxtaan ak suñuy partenaire am ñu nangul ñu ñëw euh, former collectivité territoriales yi formé nañu communes yu bari nag pratiquement neuf communes euh, ci département de Vélingara ak le partenaire Thiès Sud Bay Daare Gold aussi biñ ko sollicité moom tamit nangul nañu formé na commune yëpp yi neewoon ci zone d' intervention am je pense que douze communes la ci Kolda donc li ñu dese bëreetul mais nañu kon ne di ay partenaires tey nag ñu rafetlu partenariat bi Gold ak euh, Thiès Sud dañoo nangoo seen doole def li ñu ñëw fii ci Vélingara wax que ñu bees ñoo fi ne comme ni ma ko waxee soxla nañu xam ñoom lan lañ leen sas ñu mën koo doxal pour département bi mën a jëm kanam ñoo ci fin bi presque li ñuy wax travaux de groupe nga xam ne dina tax ñu am ay plan d'action plan d'action yoo xam ne ci durée bu gàtt lay nekk ñoom nag nañ ko approfondir après bu ko defee ñu doxal ko xool fu ñu jëm jéemal jëmale bi kanam wéyal xibaar yi ak wàllu politique lenn nag ci parti allié yi nga jamono ji rek ña ngay waaja a xaat ndaxte itam bu dee parti bii di UCS ñu ne daal dëgg-dëgg nag ànd bi gisuñ ca seen ak bopp bu Camara di responsable ca boobule parti moo ko xamle moom nag ma nga faree ca diwaanu Ndofane ma nga doon ñaxtu nee na itam lii raam bu dakkutee daañu ber seen ak yoon ak bopp ay kàddoom bi yaay moo ko tataan. d'abord surprise la doon ci ñun mbetteel bu rëy ndax li ñu boole ak euh, Benno Bokk Yaakaar dafa nekk euh, loo xam ne nii dafa marqué ci histoire parti bi ndax xëccoo bu métti daf ci amoon ndax ñi ëppoon ci ñun daanaka d'accord ñoon pour ànd ak Macky Sall parce que ñun porté nañ le combat ba raisonné leen parce que am na ñoo xam ne parfois dogmatisme da leen di téye ci lu bëri mais xëccoo nañu sur un conseil national ñu waxtaan ba d'accord ànd ak ma bi ñu d'accord ànd ak Macky pour ne pas dire Benno Bokk Yaakaar mu recevoir ñu au lim ñu waxoon mooy on va gagner ensemble et gouverner ensemble impliqué dans la gestion de ce pays en plus yaa ngi xool naka ngay jëlee ay responsables yu bokk foofu waaye nag ku créer parti politique c'est pour euh, des élections présidentielles ou autre pouvoir tax nga di ko def pouvoir boobu tax nga di ko def lii lay ciy dëgëral mooy au moins que vous sentez impliqué dans la gestion de ce pays parce que tamit loolu tax ñu créé woon parti bi servir suñu nation wax dëgg fa yàlla dem nañ ba toll foo xamante bii mooy muñ bu bi donc ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk Kaolack yor parti bi ñun daal bu ñu génn ci parti bi wa ilaa ñun danañ xoole ci benn coalition créé beneen parti wala dem ci beneen parti wala defi leneen bu Abdoulaye Baldé déllu décision ñun ñu jël suñ décision bopp ñu dem suñu. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. lii itam nag mu bokk rekk ca la ba leen euh, junjoon moom nag niwu ndem si yàlla si di El Hadji euh, Moustapha Guèye ki tey ji nag lañu koy xarandi rek ca aéroport militaire bu Léopold Sédar Senghor lu ni mel nag bu 14h jotee lay doon 17h daañu amal levée du corps ba ca l'hôpital principal bu diwaanu Ndakaaru waaye ni ki ëllëg nag lañu ko fas yéene denc rek euh, ca dëkku cosaanam boobee di Seedo CB lu mu ci mënti doon nag moom rajo Alfayda ak Alfayda TV. daañu leen ko toppal ci euh, mboolee mi ay euh, xibaar waaye nag balaa ñuy àgg ci loolee ñu waxtaanee ay mbiram ndaxte nag moom El Hadji euh, Moustapha Guèye moomee bu doon ne xam-xam jëmm la ñu ne itam foo lamb rek daal di ko fay daj ndaxte nag ku géeju woon la ci mbooleem fànn xam-xam yi gannaaw itam nag jàngam ak gëstoom moom moome nak nekkoon na fi rek njiital imaam ak ulema yi ci Sénégal gi yëpp waaye itam jot nay ame ay ndomboy tànk yu bare bari nataalam ka koy yëral mooy suñu ndaw ca diwaanu Ndar gee ci di baax a jopp mu nekkoon kàngam dëgg boroom xam-xam bu mag mu peegoon lool mbooleem xam-xamu sharia doonte waxaloon na boppam ne grammaire arabe la gën a jekku ci mboolemi xam-xam waaye ñi koy teewlu yàgg ko déglu jàpp ne bu doon xam-xam jëmm la foo làmb rekk daj ndem siyàlla si du kenn ku dul imaam alxaaji Moustapha Gueye tànk bi nekkoon président de l' association des imams et ulama du Sénégal le 5 septembre 2001 naa faatu ko ki mu fa wuutu woon di El Hadji Maodo Sylla Kang Fore bi moo ngi meññeekoo ci ñaari waajur yu tedd Cheikh Alpha Koudi Gueye ak Seyda Fama Sène soow moo ngi gën a àdduna 1937 ci dëkk bi nekk fële ca diwaanu Fuuta ñu gën koo xam ci caareen ku géeju la ci wàllu fiq muy xam-xamu diine moo ngi ko jànge ci nijaayam bii di Mouhamad Jatara nekk sëriñam bi ko yar ak jamono mu daldi toxu jóge Fuuta dem ci diwaanu Saalum ci la fa dajeek sëriñ daara alxaaji Moussa Cubb góor gi dëddu àdduna 1988 ci dëkk bi di Cubbeen moo ko jàngal téere yu bari dalee ko Laxdari ba Ibnu Malik ngir yokku taaliwaam rawatina ci kàllaam ak yaaram làkku arab noonu la yeggalee njàngam ci diwaanu saalum ci cheikh Abibakar Ñas mboolem fànn yi balaaxa ci moom mi la ko nande yemul foofu moom elxaaji Moustapha Guèye wéyal na ak njàngam ci dëkk bi di Kawlax bërëb bupp sëriñam ba wasilaam ci digganteem ak boromam cheikhul islaam alxaaji Ibrahim Ñas ñu gën koo xam ci Baay Ñas nga xam ne kenn la ci jamonoom ci jàngale alquraanul karim ni ki noonu ak tafsir ko ci xam-xam yi yépp mu dal di koy pekk ci ron keppaaruk sëriñam cheikh alxaaji Moustapha Guèye muy yokk xam-xamam saa su nekk moo xam xam-xamu diine xam-xamu borom bi boole ko ko xam-xamu jamono ngir xam àdduna ca ko cheikh islaam alxaaji Ibrahim Niass yóbbu ca réew Maroc ci université bu xaraw Qarawiyyin ci ville bu fas am na fa lu tolloo ko ñeent ci ay at mu génnee fa ci ay diplôme yu kawe ne nekkoon na délégué ci association bi ëmb Sambou étudiant sénégalais yi nekkoon foofu ca Maroc ci atum 1966 ci la dellusiwaat ci réewam mu njëkk a nekk professeur arabe jamono jooju moom moo nekkoon secrétaire général association bi ëmboon jàngalekat yi ak élèves yi làkk kàllaam ak yaaram ci réewum Sénégal waaye ci atum 1971 moom Cheikh Al Hadji Moustapha Guèye ci la dakkal njàngale gim doon amal ci école publique yi nekk ab journaliste bokk ci rédaction benn journal bu national buy bindee ci làkku yaram ñu ko doon duppee almasira cheikh alxaaji Moustapha Guèye amoon émission bu mag bu Sénégal lépp doon gindeeku ci télévision nationale émission bi ñuy duppee lettre musulmane nekkoon mufti bu mag ci biir réew ci bitim réew mu jógee fa tombeek groupe wal fajri nekk rajo privé mu wéyali fa waxtaan yi mu doon def état bu Sénégal xamoon ko lool bu baax ne Abdou Diouf jamono bi muy nekk premier ministre jëloon na ko taf ko ci wetam mu spécial lu jëm ci mbirum lislaam moom El Hadji Moustapha Guèye nekkoon na imam ratib ci jumaa ju caaro yi yoroon na post comme attekat ci tribunal départemental bu Pikine Géejawaay nekkoon it conseil spécial ci président de la république yi fi jaar comme Léopold Sédar Senghor président Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade nekkoon na délégué général lu jëm ci wàllu aj gi ay at ci jamonoy Abdoulaye Wade moom borom wallahu taala alam li mu bind ci xam-xam rawatina ci wàllu sharia ak histoire ëpp na fanweer juróomi téere tax na mission daal di mat altine 19 septembre ci atum 2022 capitalu réewum France. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 comme nag nañu koy euh, defee ci ay euh, bés yi yëpp nag mu soxal rek reportage du jour ni ki tey jii itam ña ngay waxtaanee nag wàllu lavage auto maanaam daal wàllum raxasum auto euh, ca diwaanu Ziguinchor ndaw ñaak nañu koy defee ak Mouhamed Sagna. te Ziguinchor ci raxas auto wala moto taxi Jakarta nekk na li nga xamante ne ndaw yi ñu yëngu bu baax a baax li ni mel ñu nemmeeku ko ci quartier yu bëri fi nga xamante ne ndaw yi aménagé nañu ay espace ngir ñu mën seen activité ñenn sax xamal nañ ñi ci waxtu nawet bi liggéey bi day dox bu baax a baax. nawet bi moo gën a bari liggéey nag parce que nawet ak ndox ak suuf ci matériel ci machine da koy gaaw a kii quoi les gars yi dañuy préférer nawet bi moom mooy gën a dox. waaw nawet bi moom boo xoolee si logique mu gën a dox ko noor bi parce que boo xoolee fii Ziguinchor moom taw bi day taw donte ndox bi moom dina daw bu bu tawee trente minutes après dina dem mais day am ay bërëb yi nga xamante ne quand ndox bi day taxaw di ko di nga gis ni ki oto yi bu ñuy jaar dinañ tilim. liggéey bi par exemple nawet sax lay gën a dox bu tawut si lay gën a dox na nawet si la di gën a tilim si la ñuy gën a tilim quoi ndax dëkk bi suuf bi demeewul noonu par rapport ak fi ma jógee waaye kii de moom xamal na ni moom ci période noor lay gën a gis boppam ci liggéey bi noor lay gën a dox parce que boo gisee ma loolu nawet xam nga des fois day taw quoi donc doo mun a liggéey normal mais noor moom chaque jour da ngay liggéey parce que amul taw juste xanaa peut-être boo amee ay événement ni wala nga am ay empêchement nga mun a toog mais sinon chaque jour moom munoon nga liggéey quoi taximaan bi nag ñu fekk ko ci bërëb ya jot na rafetlu bu baax a baax liggéey bu am solo bi nga xamante ne ndaw yi ñu ngi koy amal ndaxte foofu lay raxasee otoom. man temps en temps fii lay raxas lu bëri léeg ma raxas fële parce que raxas dafa set waaye bu ñu la raxasalee moom da ngay kontaan saa yoo fi raxas ba gën a moom sa oto day set leer nañ boobaa client yi sax dañ lay bëgg a sax. waaye ñàkkum accompagnement nekk na li nga xamante xaw na leen lor ci seen liggéey. loolu moom c'est sûr et certain que moom soxla nañ ko mais vu que amuñu ko bon dinañ nekk ci suñu petit moyen yi di ci góorgóorlu nanka-nanka ba keroog yàlla di ñëw. activité bi nag ndaw yu bëri ñu ngi koy amal fii ci siggi Ziguinchor ñu jàpp ni sel ni mel bokk na di tax ñu mën a xeex mbëkk mi fii ci mim réew rawatina ci Casamance. Ziguinchor Mohamed Sagna Alfayda FM. xabaar yi bitim réew. ñaareelu xaaju euh, xibaar yi euh, biti réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. Euh, jërëjëf Sane Ngone xibaar bitim réew dañ koy doore réew Mali ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sattumbar atum 1960 ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sattumbar bii nag mën nañu wax ne mooy juróom-benneelu fukk ak ñaari anniversaire yoo xamante ni réew bu Mali mu ngi koy feete yi ginnaaw bi mu mooy boppam ci atum ba léegi démb ci alxames bi léegi réew bu Mali feetewaat na indépendance am di fësalaat ne moom moom lu boppam ci atum 1960 ba léegi. diine ji ndaje boobu nag bari woon na loolu ay chef d'état yoo xamante ni teewoon nañ ci li ni mel ngir kat a gunge réew bu Mali ci bile fête. xabaar yi bitim ba tey ci xibaar bitim réew dañuy wax ci assemblée générale bu ONU jot nañ ci àddu ci crise bi am ci diggante réew bu RDC Congo ak réew bu Rwanda ginnaaw juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari assemblée générale bu ONU bi nga xamante ni amaloon nañ ko ci réew bu États-Unis président bu kongo ak bu Rwanda ñoom moomulee àddu nañ ci jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi am seen diggante ñoom ñaar wante teewul ne yi waa ONU moom danañ jël seen matukaay mat sëkk ngir kat jéem a xool na lañ def ba dakkal yenn coow yi am ci diggante réew bu Rwanda ak réew bu RDC Congo. xabaar yi bitim réew. ñu des ba tey ci réew bu RDC Congo wax ci ay manifestations yoo xamante ni ñu yëngatu ci wàllum wér-gu-yaram amaloon nañ ko maanaam médecin yi ñoom naka ginnaaw bi ñu amalee ab grève boo xamante ni ci àllarba bi ñu weesu ñaar fukki fan ak benn ci weeru sàttumbar wàccaat nañu ci mbedd yi ngir kat gouvernement bi yokkal leen seeni salaire mbir moomu ñu ngi ko amaloon ci capitale bi lim bi na takk woon na lool ndaxte gisoon nañ fi luy tolloog ñaari junni doomu aadama yoo xamante ni ñu ngi wàccoon ci mbedd mi doon ñaxtu li ni mel daje boobu lee mu mel nii métti woon na lool ci ñoom ndaxte ñi nga xamante ni ñooy police bi ñoom ñu ñëwoon tasaare leen loolu na bokk na ci li nga xamante ni moo gën a métti ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram foofu ci réew bi RDC Congo te nag liñ bëgg leen kese la moo ñu yokkal leen seeni salaire xabaar yi bitim réew dem ba réew ba Guinée équatoriale li tolloog juróom-ñetti semaine rek moo des ñu dem ci li nga xamante ti ni mooy élection présidentielle yi foofu ca réew bu Guinée équatoriale ginnaaw bi ñu ko jàppee woon ci weeru avril mu mel ni mbir moomu la indiwaat nañ ko ba ñaar fukki fan ci weeru novembre bi ñu nar dëtmal élection yooyu nag daañu ci àddu ci élection législative yi ak élection municipale yi boobu boobule ñu ko yëgal ci talaata bi ñu wees ñaar fukki fan ci weeru sàttumbar ki def li ñu mel nag du kenn ku dul njiitu réew bi di Théodore Obiang Nguema ginnaaw bi mu nekkee ci gouvernement bi ñeent fukki at ak ñett ba léegi jamono ji nag moom moomu doonaat candidat ci élection présidentielle yi nga xamante ni mu ngi war a am ñaar fukki fan ci weeru novembre atum 2022 foofu ca réew bu Guinée équatoriale bu dee nag moom moomulee dafa nar a déposé candidature ngir bokk ci élection yi lee mën nañ jàpp ni bii nag mooy doon juróom-benneelu mandaam. xabaar yi bitim réew. jeexale xibaar bitim réew ak tukki nemmeeku ki jiite jënd bi nekk foofu ca réew bu Guinée di Mamadou Doumbouya ca réew bu Mali tukki nemmeeku boobu nag li ci gën a bokk na ci jéem a retaxal diggante ñaari réew yooyu lay moom nag Mamadou Doumbia moom mi nga xamante ni mooy jiite jeune bi nekk foofu ci réew bu Guinée dalaloo nañ ko dalal bu am solo foofu ci réew bu Mali ah, jërëjëf ngoon yi foofu lañuy ñuy buuree xibaaru bitim réew yi cant ngërëm ñeel na la jaa ngeen jëf. baak euh, boobee nag tàggat yaram gi lay euh, yëgle Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi fay te nuyu mbokk auditeurs yi di leen ziar ci àjjuma ji. di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree fii ci Kaolack ak tout puissant jamono bi nga xamante ni nag na kii di Moussa Thioban ñu gën koo xam ci Thio mu nekk entraîneur bu yees bu club bi nag moom mi di Moussa Thioban nag dellusiwaat na ci tàbbeef gi ak objectif yi nga xamante ni fixé wu na ko ñu déglu ko ci micro rajo Alfayda. waaw waaw waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla bu baax a baax a baax sant suñuy waajur ñun ñëpp. waaw situation wax dëgg a ñëw ci yow moom kenn mënu ci dara bon dañoo jékki-jékki rek bon gars yi ñëw seet si ma ñu toog waxtaan wax dëgg yàlla waxtaan bu rafet waaw bi ñu waxtaanee tamit bon ñu joxante ay kàddu parce que tamit ñoom def nañ tuur wër nañ sama liggéey liggéey bi may def yëpp wër nañ ko gis nañ ne kii kat am na capacité pour yor équipe bi pour yóbbul ñu ko fi ñu bëgg ñu joxante ay kaddu kàddu yu wóor yoo xam ne ñu teg waxtaanaguñ nag pour joxe deux ans la wala trois ans la mais peut-être loolu ci wax mais moom li gën a wóor ba wóor mooy confirmer nañ ne tey jii nii Moussa Thioubane moom moo yor tout puissance jamono bu kaw la ca geneen wàll ga AS Saloum ginnaaw waa demuk Moustapha Seck ci US ki ñu toftal ci euh, président bi nag nekk tamit euh, ki yore wàllum communication beeg marketing di Moustapha Ndiaye moom dellusiwaat na ci départ bi ni mel wax tamit taxawaay bi nga xamante ni kilifa yi war nañ ko am ci Saloum Moustapha Ndiaye ci micro rajo Alfayda. xam nga comme yéen rek ci mbedd mi lañ yëgee ne Moustapha Seck ASC Saloum signé na US Ouakam te boobu fekk na mu nekkoon entraîneur Saloum bi nga xam ne moom la signé loon deux ans daaw mu wa ko dese benn at na rafetlu wuñ départ bi ci anam bi mu amee donte départ moom tàggatoo ginnaaw bu ñu ko ñàkkee rafetlu bon ñu ngi ko ñaanal fa mu jëm yàlla may ko ci ndam ñun aussi yàlla may ñu ndam ak projet yi nga xam ne nii moom lañ sumboon ak euh, Saloum euh, yàlla defal ñu ñu réaliser mais pour ñun lépp solo mooy déjà xam nga teeloon nañ jóg ren waaw ah, teeloon nañ jóg ren def ay test ci ñaari pàcc mais li am solo pour ñun mooy taxawal équipe euh, ay assistant yi mu doon liggéeyal ñu ngi fi ñooñu ñooy continuer yor équipe ba ñuy am entraîneur bu bees am na kuréel gu ci liggéey bu entraîneur bi ñëwee rek danañ ci communiquer wax ne liggéey bu bu ñeenti waxtu jotee donc daal pour ñun loolu moo ëpp solo quoi ñun daal saalu moo ëpp solo li nga xam ne ne moom mooy ndoxteelu championnat professionnel Ligue 1 ak Ligue 2 bi nga ko benn fan ci weeru octobre moom nag dàq nañ ko ba fukki fan ak juróom ci weeru li ko waral moom mooy ay jafe-jafe ci wàllum administration bi mooy ñaareelu dàq gi nag ñu fàttali leen nag lii di tirage au bi moom jot nañ ko amal ñu dem ca dënn ko Europe tey Brésil dina laaleek Ghana bu juróom-benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili ak liggéey Ligue des Nations juróomeelu bëccëg ci groupe A bi nag Allemagne dina laaleek Hongrie Italie dina laaleek Angleterre Finlande dina dalal ñii waa Roumanie Bosnie Herzégovine dina dalal waa Monténégro Géorgie di laaleek Macédoine du Nord bu ñeenti waxtu jotee Bulgarie di laaleek Gibraltar bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent jeexal nañu ko AS Ville de Dakar nag am na option bu baax ngir jël li nga xamante ni moom mooy champion bu Sénégal ginnaaw bi mu daanee dikk cinquante huit quarante ci final aller nag ci play off yi ñu fàttali li nga xamante ni moom mooy jongante retour bi nag jàpp nañu ko samedi gi ñu dëgmal fële ca Marius Ndiaye ma ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee ndaa yu jàmm lii ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat jërëm yi Juma Mubarak li ci yéene kaay kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. ak kontoor woyofal yi woyofal leen seen àdduna ak Senelec moo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci euh, yéenekaay yeeg El Hadji euh, Seydina Omar Cissé. lan bi ko Moustapha fañ koo tudd ci xab tooxi doona ci ay milliards yu bari turbine yéene kaay ne mook Baba Jaw la Le Réveil yéene kaay ne Moustapha Niass kay liñ ko tudd fa garaaw mbiru ger lu toll ci quarante cinq milliards ci suñu xaalis lépp jëm ci wàllu pétrole bu ñu jaay ci anam goo xam ne jaarut yoon ci réewum Nigéria mook Baba Jaawo procès suisse secret moo wax ne société bi ñuy wax AOJ fa versé xaalis bu bari ci compte Moustapha Niass ak Baba Jaaw CFAO ci seen compte banque boo xam ne Suisse la nekk Moustapha Niass nag nee moom yëgut compte boobu ñuy wax terewul nag moom Moustapha Niass nee na boobu ñuy wax muy AOG moom fa bokk ca actionnariat ca te bàyyi na société boobu ca 2006 Vox Populi Moustapha kay ak Diaw milliardu pétrole yi ca jamonoy Sani Abacha la woon mbir mu garaaw la ah lu garaaw Rose Wardini moom la dal compte banque bi fañ koo tëj jafe-jafe la am ak wàllu yoon Libération moo a bi ne li ko xaalis ku ñuy wax Jean Marie Guiyaage lu ëpp ñetti téeméeri million ak ñeen fukk ak benn wàllu fay ga nag ki mu war a jox xaalis bi fa àllaa traité te nga paru la dëkk saa bu ko diggee rek na dana fay du ko def turbine yéene kaay moom it di ñu xamal ne xam na tooxi doona bu amati ci kër docteur yi ginnaaw Louga ak Kédougou xam na beneen soxna su doon xam doom mujj faatu ci ak càggante yëf yaa nga amee ca hôpital Matlaboul Fawzayni ca Touba na ko faa lay wax ni yëf demee xale bu jigéen bi étudiante la daaw la am baccalauréat ñaar fukki at ak ñett la am soxna jala baayam moo jiite liggéeykat yu Fawzeyni bu Touba léegi bi doomam bi ñëwee war a wasin fa ñëw ci moroomu doktooram yi na leen kii sama doom la fay xam doom waaye nag bu ko opéré ndax fa amee tension bu leen ko opéré rek fay dee collègue ya moroomu liggéeykatam ya dàq na ko génnal fi ñuy opéré ca biti na ko gënoo ñoo xam li ñuy def waaye ba muy génn ci la ko docteur yi opéré xale bu jigéen ba faatu waaye nee na ba moom mucc na faatuwut bàyyi ja ñëw na leen waxoon leen bu leen ko opéré sénégalais bi ñuy wax Alassane Sall fa porte plainte état bu Sénégal rawatina ñenn ci ay responsable faranoonu Macky Sall yi àndoon ak moom keroog bi mu demee New York yow seetal opposition bi ay sénégalais moodu moodu yoo xam ne fañ doon yuuxoo Macky Sall New York ñaawlu ni mu yoree réew mi dictateur ak troisième mandat du fi ame loola nag fa naqari woon ñenn ca jege ñaala Macky Sall ya bañ jël ay ponkal nervi ñu jàpp Alassane Sall fañ koo dóor dóor yi métti léegi mu porte leen plainte ca réewum Amérique léegi si ko yéen a kaay la muy sàkku nag ne na ko état bu Sénégal fay milliards ci suñu xaalis ndax Amérique moom ay nerveux jaay doole jàpp ni di dóor ni rek ndax bokkuñ fuñ far loolu amul Amérique de laa si kaay na ko faala ci yokkal xanaa xam moom Macky fa mere lool farandooram ya nekk foofu New ndax seen doxalin keroog bi mu fa demee ñu nekk foofu di xoole ba ñuy yuuxu Macky Sall àdduna bi yëpp di ko gis loolu neexul Macky ñi neexlee gudd nag mooy député yu bees yi assemblée nationale ba léegi amaguñu ay oto de léegi Barthélemy Dias ak Ousmane Sonko est-ce que foogu leen ne nguur gi nam def Khalifa ak Karim fa leen koy mujj def vox populi na ko en tout Sall moom ma nga ca wetu Barthélemy Dias di ko jàppale ci coowal njaga juuf li info yéen kaay ne fa ñoo waxante dëgg njiiti mi Macky Sall moom benn ngàndaay la yor mooy opposant kum gis na daal mën nga koo gañe nekk président bu Sénégal rek fay fexe ba faagaagal la jaare ko ci wàllug yoon ba doo a ah ko a jaare ba sànk Dakar yi la bëgg a jaar ba sànk ko Mamadou Ibra Kane journaliste ca E-Media ne man d'accorduma ci ñu faagaagal Barthélemy Dias jaare ko ci mbiru Ndiaga fi wàllug yoon ba tere ko bokk ci ay wote nangu meereem ba dàq ko assemblée ndax loolu baaxul ci démocratie gis nga bu ñu waxantee dëgg ab réew fay am nguur ak ku ko jiite am opposant ñoo xam ne ku jégi la bokk waaye yow opposant bu la sonal rek jaaxal la rek au nga dem moom ci ay wote wan yaaw seetal yéen a ngi fàttaliku si jamono yi Ablaye Wade bi ñuy woolu Barthélemy Dias ci wàllu yoon ci mbiru Ndiaga Diouf yi Macky Sall mi njiiti réew mi si jamono jooju moo demoon ba kër Barthélemy Dias jël kàddu wax Sénégal yëpp di ko dégg mu ne mbiru Ndiaga Diouf yi wàllu politique la te ñun duñ nangu mukk ñuy tëj Barthélemy Dias di ko jaay doole mu ñaawlu doxalinu Wade ci jamono jooju léegi tey mu nekk président fukki at coow loolu fàtte woon nañ ko léegi ñu sulliwaat ko pour nangu maire bu Ndakaaru ak député Barthélemy Dias loolu du neex benn sénégalais ndax sénégalais moom a kaay na bi moo tax fa mere Macky ay farandorom ci leesi ko yéen a kaay nee nañ poste bi ñu jox Ablaye Balde ci assemblée nationale Ablaye Balde delloon na leen ko nee na bëggut ndax Macky respecté ko te joxu ko cër Aboubacar Dias yoroon kàddu UCS moo ko wax ña waxoon ne duñ boole ñaari mandat cumul de mandat muy waa Yewwi Askan Wi Walf Fadjri yéen mel ni ko naan leen yéen a ko fi ko le mandat yéen a kaay na benn bokk yaakaar yëngatu na de fa bëri ñu mer ci ay responsable Serigne Bassirou yóbbu ko Thiès ki nekkoon borom Thiès ci ay jamono di Idriss Seck ëllëgam ca benn bokk yaakaar te mooy yéen kaay nee na fa taq suuf de boo moy Idi Faye génn ci benn bokk yaakaar ah gars yi wax ne moom li juboo woon ak Macky mooy Macky def ko premier ministre 2024 mu yàkkal ko nguur gi nekk seen candidat te Macky falul ko premier ministre 2024 fa aw yoonu laaj ñetteelu mandat kon tey Idi fa ko nar a bàyyi li tax Macky Sall nag moom mënta bàyyi moo tax Macky bëgg Mariama Sarr rek yow Mariama Sarr askanu Kaolack Diouf doyal wan ko ginnaaw ah yow wote maire yi passé Mariama Sarr fañ ko mbuqi Kaolack wote député yi weesu fañ ko mbuqi Kaolack commune élection yu dem ànd ak benn bokk yaakaar ñu gañ ko koy fañ ko waroon a sanctionné ànd ak mbuq yu météo yëpp Macky falaat na ko ministre ci gouvernement bu bees bi l'évidence na man loolu xawma lu tax te responsable APR ya nekk Kaolack ñu bëri jubawuñu ak Mariama Sarr waxuñ ca moom dara rawatina nag responsable jigéen ans fa xamoon doom ju góor ju mu adopté doom ja màgg muy dem di tëdd ak doom ja dem ba mu yàgg mu bëgg koo dakkal xale bu góor ba bañ na ko fa ñuy continuer yaa ma ko tàmmal ndaw tooxi doona libération ne faa leen di wax beneen tooxi doona yow seetal benn xale bu jigéen fa xamee faru rab dem ci benn waay buy wax ne fay faj faru rab waaja fa koo doroge ba pare tëdd ak moom lépp ngir dàq faru rabam wi xale bu jigéen ba mujj koo porter plainte bañ teg ko loxo waaja na dëgg la li ma maa ko def <laughs> waa ma ne tëdd ak xale bu jigéen ba ne fa ngay dàq faru rab ngay dàq sa bopp rek nga ne yéen xale yu jigéen yi fa ngaa xam faru rab bëgg jëkkër seetal góor gu baax nga ne ko kaañu ñu sëy te bu ko laaj dara ku ko ci def am jëkkër de ak kontoor woyofal yii woyofal leen seen àdduna ak lekk moo leen doon may li ci yéene kaay yi li ci yéene kaay yi Choukran euh, El Hadji euh, Oumar ponk boobe sax nag mooy jeexal euh, xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllu déglu gi jaajëfal ko du sekk kenn me ci xarale gi Mouhamadou Khalili ci partie digitale bi waaye duñu fàtte waa rédaction ak wa production ci njàppandal gi mbokk yi ñanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti tawfiix ak taysiir jaa ngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine